man maay Saliou seen directeur centre de formation professionnelle bu Morolan man nag dama lëkkaloo ak partenaire bu am solo bi ñuy wax 3FPT dama bëgg nag ñu bëri ràññee ko lu tax ma wax mooy 3FPT dafa nekk instrument ministère de l' emploi de la formation professionnelle de l' apprentissage de l' insertion bi Dame Diop jiite waaye ci 3FPT boobu DG 3FPT Sophie Diallo yónnee fi délégation bu takku ñoom nag dañu am guichet yu bëri. du ma ci dugg xëy na ñoom dinañ ko nañ ci xuus nañ ci mais man guichet établissement dañ ma jël ñoom wóolu ma jël ma comme opérateur ma teewal leen fi peccum liir bu neexee nday jaa jàpp ca wagg yi gis nga ñii ñëpp liñ naan monsieur Sène monsieur Sène alal bi yëpp 3FPT la moo ma dooleel jox ma moyens ma mën a nekk fi trois mois daal di def la mise en œuvre indi samay formateur jënd matière d'œuvre def évaluation yi defal leen une formation de qualité waaye man pour la cible am na ñoo xam ne dañ naan dañ leen di former rek en entrepreneuriat yem fa man nag ci sama budget damay def sama kemtulaay kattan ba jox leen module de 10 jour en entrepreneuriat mais joxaale leen ay kit kit yooyu mooy xale bu ci nekk boo ñibbi bu soobee yàlla di nga jënd am machine bu bees pul yaa ko moom yóbbu sa kër ñi def transformation fruits et légumes comme machine bu nekk 60 000 laa ko jënd dama jënd aussi euh, valeur bu 60 nga xam ne xale bi dina ci am machine bu koy jàppale ci jus yi dina ci am gaz dina ci am siw ak leneen ak leneen di ngeen ko gis léegi yooyu c'est pour ñu ñaax leen nee leen nag bu ngeen amee loolu ba pare terewul nag ak seen i plan d'affaires yi ñu leen jàppale ak sama responsable insertion ak formateur euh, entrepreneuriat j'ai invité mon ami monsieur Camara maa ngi koy gërëm mooy responsable pôle insertion euh, pôle emploi bu nekk Tivaouane ndax xam ngeen dafay def li ñuy wax ay pôle ñoom nag kon danañ ko jege mu yombalal leen pour ñu accéder au financement DER ndax xam ngeen ne foofu kuréel la boo xam ne ñëpp a nga fa di ngeen fa fekk DER 3FPT ANPEJ donc buñ càmbaree say dossier si c'est pertinent et réalisable ñu daal di la financer di ci sant aussi ñi ma jàppale parce que 3FPT dafa gëm dafa am benn gëm-gëm di la naan seen bul yem ci intervenant yi nekk ci centre bi mais ku mel ni ku mbayaam bi sekk mii yàlla rek moo ko mën a fay parce que dafa ñëw takkaayu ànd ak ñun ci formation bi woon expérience am les sœurs la aussi pourtant ñoom dëkkuñu si dëkk bi mais ñoom ñoo boot requête bi daal di ko déposer ba tey communauté bi yëpp ñu recruter les femmes démunies et les handicapés indi leen fii ñu former leen en trois mois def ñu dans d'excellentes conditions fii dañ fa def ñaari chambre de passage pour les formateurs bu ñëwee fii la ñuy tëdd fii la ñuy defee suñu lépp macha allah kon ñuy sant ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm le 3FPT di gërëm les sœurs ceinture sudine le maire de la commune ak toutes les autorités en l'occurrence le préfet et les partenaires. Euh, salaamaaleykum maa ngi wuyoo ci turu Mamadou Moustapha Thiam euh, agent administratif bu 3FPT guichet de financement des demande individuelles tey ñoo ngi fi Mampal pour assister pour teewee benn cérémonie de remise d'attestation ci ay jigéen yu toll ci 22 pour une formation en transformation. de fruits et légumes ak beneen formation bi nga xamante ni jigéen yi mës jot nañ koo def euh, pour affaire coupe et couture financement formation bi nag 3FPT moo ko financé à hauteur de 17 millions environ donc looloo waral suñu teewaay tey. njëriñ bi la. njëriñ bi mooy jàppale gunge dooleel jigéen ñi pour ñu am xam-xam pour mën a liggéey pour moom mënal seen bopp pour mën a. Euh, def ay activités économiques yoo xamante ni dina leen amal njëriñ amal njëriñ seen famille amal njëriñ seen i gox donc dans l'objectif euh, puisque ñoom ñëpp Sénégal dafa yaatu te kenn ku si nekk war na see gis wàllam 3FPT dina def kéemtulaay kartanam fu sénégalais nekk muy jeune wala femme mu fekk la ba sa bërëb daal di xool sa besoin en formation mu xool naka la koy accompagner financièrement financer ko pour nga am benn renforcement de capacité coup, ça, c'est pour les entreprises et les organisations professionnelles, mais pour les jeunes également, ils ne sont pas en reste. Le 3FPT peut les accompagner en finançant la formation professionnelle et technique. D'ailleurs, c'est notre mission régalienne, parce que le, comme son nom l'indique, le 3FPT, c'est le fonds de financement de la formation professionnelle et technique. Notre cœur de métier, c'est le financement des projets de formation professionnelle et technique. La formation bi xam naa ne moom njëriñ bu ñu am mënuñ kaa xayma franchement parler formation bi andil nañu loo xam ne lii duñ ko rëccu benn yoon ndax ñun dañ doon xëy fii di toog duñu am lu ñuy def mais tellement que am nañu madame yoo xam ne ñëw nañu jàngal ñu loo xam ne lii duñ ko mës a euh, dindi si suñu bopp yi def nañu si suñu bopp yi loo xam ne lii dinañ doon suñu njëriñ ëllëg ak njëriñu suñu doom macha allah ndax xam naa ne moom jàngal ay mag yombul mais def nañ ci seen kamtalaayu kattan ba def nañ ci suñu bopp yi dara daal. ci wàllu koom-koom moom dinañu amal njëriñ ndax bu dee wàllu sakanal dinañu sakkanal. imagine leen bu dee légume am na yow di nga def say conserve pour bu nawet ñëwee nga mën cee jëriñu après waaw loolu moom jàng nañ ko bu baax a baax a baax.